jàmm ji info point bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal xam ne moo di jàmm ji info. asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy fii si sunu site bii di jàmm ji info fépp waaye mën ne ci réew mi ak bitim réew tey ñu dalal ki nga xamante ni mooy Bill Diakhou ñu gëjoon ko gis lool nag askan bi namoon ko lool. waaw ñu toogoon ay giir gisuñu ko xamuñu si lu mu nekk tey moom lañ seet si pour def ak moom waxtaan lu joxu gannaaw ba la nuyoo dañ lay bàyyi nga nuyoo mbokk internet yi ñu doog a dugg ci mbokk internet yi salaamaaleykum waa jàmm ji TV di leen ziar di ziar askan bi yëpp di ziar waa Sénégal yëpp jërëjëf ah, kooku mooy Bill Diakhou waaw doon ndaanaan si rap si rap bi nag doon ancien rappeur bu mag quoi mais Bill Diakhou gannaaw ba la nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi mooy maanaam gëj nañ la gis askan bi gëjoon nañ la gis fan si namoon nan la xamuñu woon ci lan nga nekk est-ce que mën nga ñëwal tuuti quoi si si lan nga nekkoon yow depuis giir kenn déggatu la fenn quoi waaw est que mën nga ñëwal tuuti. waaw man nag euh, dama am benn concept boo xam ne ñu ngi koy tuddee RRR rap rar recherché. waaw man du artiste boo xam ne tout le temps damay fréquenter télé yi tout le temps nga may gis ci télé yi. Mhm. yooyu quoi parce que dama naan am na benn liggéey boo xam ne bu important boo xam ne war naa ko def ci askan bi. maanaam bu ma ko defee ci kaddu gi kaddu yi ba pare war naa ko mën a def ci jëfin bi maanaam. Mhm. wàcc sur le terrain. pour def une bonne sensibilisation à la jeunesse sénégalaise. ak képp ka nga xam ni da nga di. doomu réew mi bëgg réew mi avancé malay jàppale ci liggéey boobu mhm. en même temps di sensibiliser jeunes yi mhm. ngir loolu ñu nekke woon maanaam di dem di tukki te xamuñu fi ñu jëm mhm. te la ñuy tukki di ko wuti ji am na fii voilà ci développement durable laa nekk ak euh, développement local mais mais mais lu waral gëj gëj gëj génn bi tamit quoi lu waral loolu parce que génne bi du dara parce que man moom euh, boo xoolee sama album bu mujj bi. Mhm. génn na États-Unis génn na Johannesburg. Mhm. parce que man dama am maison de disque. boo xam ne moom laay liggéeyal. Mhm. moom bu ma liggéeyee dama ko koy jox moom moo koy génnee. peut-être promotion bi biir Sénégal laa du def à 100 pour cent. mais mais mais mais am na ña nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko war a occuper parce que man. comme man maison de disque laa yor ñi may liggéey ak ñoom moom mooy ma def sama produit jox leen ñoom ñu exporté jéem a jaay euh, à l'extérieur feneen ak feneen mais Sénégal Sénégal nag xam nga man sama Sénégal la. Sénégal samay samay samay fans lañ fiy bari. bëgg ma te yàlla tax. voilà à chaque fois nag samay fans. dëgg dëgg dëgg ñi nga xam ne tax naa leen jóg. ñu ngi seet ci li ma nekk ay ñu ngi da am de très bonnes informations. par rapport ak sama album yu bees yi ma génnee ak single yu bees yi ma génnee. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. mais est-ce que mën nga ñëwal tuuti sa carrière début de carrière ba nga ñëw fi nga jaar yëpp ba yegg si fii. est-ce que mën nga ñëwal tuuti ci loolu. waa man nag euh, hip hop bi dama màgg ak moom. Mm-hmm. c'est-à-dire man gaa yi dañu naan ma old school nga sax. mais ah, duma ma old school. Mm-hmm. man old new school la c'est dooj ak sop moo tax ma nekk ñu boole ma ci old. school yi dëgg la dëgg la waaw parce que man dama teel a fréquenter rap nekk xale bu ndaw. Mm-hmm. man instant yi may génn ci rab boobu majeur guma waaw boobu majeur guma c'était en mille boobu majeur guma franchement dama génn noonu euh, euh, ànd ak mouvement bi yàlla may def parce que du sama ngóoróor aussi mënoon mhm. naa def titre te du siw mais bi ma defee maamu noonu mu siw nit ñi xam ko depuis boobu bàyyiwu ma ma pare def après euh, miraas mhm. bi miraas hôpital yi hôpital yi après ma def audience baykat yaa ngi dégg après ci laa ñëw indi story blues indi tani jaa ngi nii du yaa ko laaj mm, mm, mm. indi yeneen ak yeneen ay ay single ak ay album dëgg la dëgg la dëgg la mais mais instant yi ñu nekk si mbas muy covid 19 di coronavirus lëmbi àdduna depuis quatre mois ngi nii presque yéen parce que musique ngeen yëngu chaque jour di ngeen tëgg soirée di ngeen def ay affaire mais boobu boobu ba léegi affaire bi daal kii na leen téye na leen téye boo xamante ni mënatoo leen dem mënatoo leen mënatoo leen tëgg mënatoo leen def dara quoi mais depuis giir lool noonu ba léegi yéen nan ngeen ko dundee quoi nan nan ak te musicien musique musique musicien moom mënul toog te tëggul waaw loolu moom mënul ne depuis boobu lan ngeen ko dundee waaw depuis boobu ñu ngi dund calvaire bu doy waar parce que tamit euh, boo xoolee boo xool ñun moom aar bi rek la ñu am. te et metti na. metti na mais nag euh, comme méttiwul ci ñun kese. Mhm. dafa boole askanum lëmb. Mhm. dal leen ku ne ci secteur bi nga nekk yaa ci am ay tolof tolof mu ngi metti ci yow. donc ñun bu ñuy massaw du musiciens yi rek la ñuy massawu dañuy massawu ñëpp askan bi yëpp. Mhm, parce que parce que am na ñoo xam ni. nekk ñu ci musique waaye ñu ngi mm-hmm. dundal ay famille yu bari. Ah, ah, ah. ñu ñi ne seen ginnaaw te dañoo bari. Mm-hmm. ah mm-hmm. mbas mi bi mu ñëwee tamit. dem nañ ba benn instant président de la république. Euh, Macky Sall am na lu mu def am na lu mu may artistes yi. kooku nag ñu ngi ko koy jaajëfal. ñu ngi kontaan ci initiative boobu. ak xel moomu ñu ko xelal ba mu def ko. initiative boobu président de la république def am na solo lool. et que ñu ngi ko koy jaajëfal. que ne euh, àdduna moom nii la quoi. askan moom boo leen jiitee da ngay jéem a xool seeni feebar seeni i mbébét. ak euh, problème yi ñu am. nga jéem a xool naka ngay def ba euh, saafara ko. jéem ci dara. parce que lépp mënut a mat daal. mais au moins nga def dara. mais nag artistes yi ñu ngi koy jaajëfal monsieur le président de la république. Macky Sall jërëjëf mais mais depuis boobu ba léegi am nga mbas bi ba mu commencé. dañ defoon vingt kenn du génn waaw vingt heures fu mu jotee rek ñëpp dañuy dugg seen kër yi mais ñu dem ba ci ba ci yoon tamit ñu defaat vingt trois heures dem ba léegi ñëwaat lënd bi Macky Sall génnaat ñëw ni euh, dindi nañ ko euh, kii bi nu mu tudd couvre-feu bi waaw mais loolu lan nga ci xalaat tamit quoi bon li ma ci xalaat mooy daa war a jeex rek mm-hmm, mm-hmm. parce que nit ñi tam mënoo leen te tëj depuis mm-hmm. ay ay kii daa war a jeex jeexal na ko waaw loolu mu def noonu baax na trop parce que nit ñi dellu seen activité mhm. aussi c'est important mais gars yi ñu ngi doon wax barrière mesure yi ba léegi pour gars yi mais da ngay génn Sénégalais yi ba léegi respecté wuñ ñoom feebar bi am na mais bu ngay génn ba léegi doo gis gars yi tax max dañuy dugg si oto yi dajaloo tànk tànkaloo distance bi ñu waxoon léegi respecté tuñ ko tamit loolu tamit. Hmm? wa éducation la rek. Hmm. parce que je pense que on a tous tous tous de de cette pandémie. Hmm. ñun tamit def nañ lu ñu mën. on a sorti des singles. wax ci pandémie bi. artistes yëpp jóg nañ. sol seen dàll waxtaan. expliquer mais mm. nag euh, communication du doy il faut mm. beaucoup faire la communication parce que sénégalais moom moo bindoo noonu sénégalais xam nga ni am na yoo xam ni moom des fois day dem ba kii bu ci maaree rek mm-hmm. dootu ko gëm wala affaire yu demee noonu mais je pense que ndànk-ndànk la rek quoi parce que parce que feebar moom bu nee cib dëkk il faut une bonne sensibilisation mm-hmm. ngay continuer di sensibiliser rek te bàyyi mm-hmm. je pense que loolu moo gën a important nañ continuer ne di sensibiliser di waxtaan ak askan bi di def kii et di teg clip yi comme ni ñu ko daan tegee. Hmm. au début. mais jot na tamit yéen tamit ñu bàyyi leen tamit commencé leen bàyyi xam nga ngeen di def ay mesures di tëgg seen soirée baa ngeen di def seen i concert loolu tamit. Hmm? waaw mais xam nga nag tamit affaire mesure barrière moom. Hmm. c' est un peu plus compliqué parce que bitim réew gars yi ñu ngi fonctionner seen i affaire waaw mais mesure barrière a waar la ci musique. parce que booy xool ba xool bu fekkee da ngay tëgg ah, musique am na nu mu lay duggee rek dootoo mën a téye sa bopp bu dee fecc kat nga da ngay jóg fecc sàllaar ñi mhm. Mhm. yaa ngi dégg mhm. bon donc pour côté boobu moom c'est un peu difficile tuuti tuuti tuuti mais nag euh, mais pourquoi pas tamit si tele yi gars yi di invité chaque chaque chaque samedi ba kii ñu invité benn artiste def ak moom euh, en live en direct loolu tamit war na mën a ne. waaw mais ñoom ñu ngi koy commencé. def les télévisions. waaw commence à adopter ñu ngi commencé di woo artiste parce que man seetaan naa Pape Ndiaye Coppet seetaan naa Frère Guissé. Mhm. Euh, sur la 2STV. Mhm. seetaan tamit euh, ci yeneen chaînes yi tamit ñu invité euh, mhm, Wally. foog naa sur Walfadjri. Walfadjri waaw voilà. mais instant mu toll nii parce que maa ngi ñëw fekk ngay liggéey lu am solo. waaw maa ngi dégg neex daal en tout cas loolu xam ne xam naa ne moom bu génnee moom dina cartonné quoi vraiment. waaw gis nga. ne mooy mooy mooy mooy mooy sëy rek ci wàllu sëy waaw waaw waaw wàllu sëy parce mm-hmm, que mm-hmm. sëy yu bëri dafa tas dafa tas dëgg par rapport ak manque de compréhension bi nekk mm-hmm. diggante ku jëre ku góor ke ku jigéen ki moo indi problème yi ba tax na bon ma toog inspiré ni des fois sa góor dina génn dem ci biti dem lijjanti ji xëy na kër gi du mat du rus na ko wax guddee bu yegsee yow tam ngay ndir ko ay problème foog ne dafa demoon fanaani feneen wala dafa demoon kii am na góor ñoo xam ni tamit dañ koy def mais am na ñoo xam dépassé nañ loolu stade boobu dépassé nañ ko seen mm. xel ci yeen lañuy lañuy mm. dox domaine bi ma gën a spécialisé mm. ci actualité moom mooy wàllum mbay wàllum mbay waaw parce que dañu gis ne léegi jeunes yi mm-hmm. dañ doon tàmm di jël ay gaal di gétti waaw waaw waaw loolu tamit am na solo extérieur affaire yu demee noonu léegi nag mm-hmm. yàlla def nag euh, euh, président yi mm-hmm. euh, du Sénégal ak waa ANIDA lëkkaloo teg benn benn benn benn structure boo xam ni teg ay ay ay ferme ferme di dimbali jeunes yi. Mhm. waaw di dimbali jeunes yi jeunes yi nga xam ne génne nañ ci université bi am ay ay lijaasa ci agricole. Mhm. ak yeneen ak yeneen bëgg a bay. Mhm. ñu daggal leen ay terrain seet ay communauté rural ànd teg ñoom lëkkaloo daggal leen ay terrain def ko ay ferme ferme yi nag day am ferme waar wi. am ferme naataange. am ferme familiale. léegi nag ñooñu ñi leen ñi leen ci ñi ñu bootu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko financé mooy comité européen mhm. yaa ngi dégg Pacersen ah mhm. banque mondiale PDC pay pay Paribas mhm. yaa ngi dégg BAD ci la bokk BAD waaw PA P e ci la bokk P2RS ci la bokk coopérative bi pape pape fii ñooñu tamit ak italien yi Papesen pays dëgg la yaa ngi dégg. Hmm. Pape Sène euh, Pape Sène Pays ñooñu ay euh, kii lañ ñooñu ay ñoom ñoo jël seen alal. ñu hmm. yëkkati jox euh, dénk nguur Sénégal hmm. pour ñu dimbali. jeunesse ci loolu rafet la euh, góor gi nag jël ko dénk ko waa ANIDA ANIDA nag di def liggéey bu. am solo euh, am solo mm. mu war a nekk ay 860 fermes. Mm. naataange yoo xam ni ci deux mille vingt bi yëpp war na réaliser. Mm. léegi nag ñoom ñu ngi toll ci cent 323 fermes. Mm-hmm. naataange. villageois naataange ak cinq cent 527 familiales naataange. ak création bi boo xoolee boo xool loolu yëpp dafay créer. quatre mille emplois mhm. fii ci Sénégal donc c'est ah. important donc mbay rek ay mhm, dëgg xam nga bu ñu créer quatre mille emplois c'est-à-dire euh, c'est-à-dire boo xoolee boo xool 30 pour cent taux de chômage dañ koy rayé ci ci ci ci Sénégal. Mm-hmm, mm-hmm. donc jeunes yi dinañ am fu ñu sukkandiku di bay di dindal dundal seen bopp di bay di dundal seen i njaboot. Mm-hmm. di bay di dimbali seen i waa kër donc c'est important ci foofu dañ toll léegi. léegi boo xoolee ba xool coût boobu yëpp. ah de production day nekk quatre-vingt-dix mille tonnes. xam nga quatre-vingt-dix mille tonnes c'est important. important pour pour. dëkk jël ko génnee ko biir dëkk bi dem hmm. jaayi ko extérieur c'est important loolu day naatal réew hmm, donc jërëjëf waa ANIDA hmm. ci loolu te boo xoolee bu xool chiffre d'affaires boobu day nekk dix milliards dix milliards loolu neexul neex na trop neex na trop donc na jeunes yi <laughs> bàyyi seen xel ci que ne léegi il est temps Sénégal dafa dafa avancé léegi Sénégal wax ji ca gannaaw. Mhm. waaye jëf ji ca kanam. ca kanam yaa ngi dégg. Mhm. donc Anida mu ngi def liggéey bu am solo. am solo dëgg waaw loolu moom am na solo trop trop ñu ngi dimbali jeunes yi daal quoi. vraiment boo xoolee xool dañuy créer benn ferme. waaw bu ñu créer ferme dem dem dem dem jël benn euh, kii jël énergie solaire def ci. Mhm, parce que xalaat na ni bu fekkee groupe nga yor électrogène. yaa ngi jënd essence. yaa ngi jënd essence bi day gën a cher. léegi at bu jot benn jeune bu am un million ci at. Mm-hmm. baaxul baax na baax na trop mën na defar lu bari. mën na defar lu bari kay ah. loolu am na importance trop. loolu idée yi rafet na trop quoi million rek mais boo xoolee boo xool da koy ëpp. da koy ëpp des fois mën nga dem ba un million mm-hmm. huit cent. Mm-hmm. donc da ëpp donc taux de chômage boobu loolu boo ko boo ko amee c'est parce que dëkk bee ngi commencé di naat. mais nag ñi ko comprendre rek ka ciy dem de. ñi ko xamul. ñu ci ñu ngi ci. Mumbai beeg maa ngi bëgg tukkee tukkeeg. mais je dis too liggéey gàncax dafa am solo. Mm, dafa am solo gàncax moom moo yor après. réew dëgg la dëgg la surtout sunu réew mi sax. surtout sunu réew mi gis nga un pays ñu naan un pays sous-développé et tout. waaw nous pas un pays sous-développé. man mm, je suis jamais d'accord ñu naan le Sénégal est un pays sous-développé. c'est vrai tout. Mm-hmm. mais xoola chinois yi ci lan la ñuy bay. Mm-hmm. demal ci japonais yi. dëgg la bi ñu dooree Hiroshima Nagasaki. Mm-hmm. seen terre yi dafa yàqu. dafa yàqu kenn mënatu fa bay soble. kenn mënatu fa bay benn kànje. Mhm. ah mhm. loo fa bay suuf sa euh, kii ko. mais dem nañ ba ci di bay ci kaw xeer. waaw xoolal loolu. di bay ci kaw étage yi. Mhm. réew mi naat. xoolal tey Japon. deuxième puissance mondiale xaw ma troisième puissance mondiale. duñu liggéey dëgg. voilà ñu génn nañ ci. dëgg la génn nañ ci Chine tamit waxi nopp. Chine guerre moo ko mu a yàq ay guerre li ñu guerre ci at kenn xamul nu mu toll. kenn xamul nu mu toll mais xoolal tey Chine. développé na léegi mu nekk première puissance mondiale parce que mbay mi moo leen ko may dara may liggéey rek moo am solo liggéey rek am solo te damay jaajëfal waa Pacer Sène mhm. parce que espagnol yi tamit ak italien yi mhm. kenn demul ñu des kenn ñu des voilà def nañ contribution bu extraordinaire mhm. treize milliards yoo xam ne dañ ko fa injecté pour jeunes yi liggéey defar ay ferme yu extraordinaire boo demee euh, ANIDA da nga fay fekk ay experts. des gens yoo xam ni c'est des experts en mm. ferme. Mm. dañ lay defal ferme yoo xam ne niveau norme internationale. ngay am di nga am néeg ci biir. Mm-hmm. di nga am sa courant. Mm. di nga am sa ndox. ah sa climatiseur sax bu la neexee nga def ko ci ci sa biir néeg def ko ay ferme yoo xam ne bu comme bu ñu defee ferme naataange benn rond lay doon benn rond dëgg ku nekk ñu jox la benn hectare bu dee cinq hectares la ku nekk ñu jox la benn hectare nga bay ko kii bay kànje kii bay melon kii bay euh, gombo kii bay euh, pataas kii bay pomme de terre mais bu yàggee day développé léppay développé dëgg la dëgg la jërë jërëjëf <laughs> jërëjëf Bill waxtaan yi am na solo trop wala sa kàddu gu mujjee sa kàddu gu mujjee moom mooy yàlla nañu yàlla defar jàmm Sénégal te que baykat yi hmm. ñu nañu nañu delloo njukkal ministre bi hmm, hmm. parce que ministre bi il a beaucoup fait aussi yaa ngi dégg ministre bi il a beaucoup fait Moussa Baldé a beaucoup fait pour le Sénégal c'est vrai c'est aujourd'hui dafa ñafe pour que mbay mi avancé donc nañ ko jaajëfal jaajëfal le président de la République parce que dëkk ab dëkk peccum liir bu neexee ndey jaatee ca mag la te dëgg rek kay dëgg lu dul dëgg du dëgg dëgg rek kay dëgg jërëjëf waa jàmm ji hmm. di jaajëfal El Hadj Malick Sarr hmm. Anida ak euh, Malick bu Anida ki yor seen communication yeeg yooyu hmm. xam nga di leen jaajëfal di la xamal que ne kontaan naa si ñëw bi ma seet si ñoo la gën a kontaan waa jàmm ji dama leen di suivre et que yal na yàlla yokk seen euh, télé bi mu gën a jëm kanam jërëjëf jërëjëf